asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu mbokki julli di mbokki taalibe yi noo ngi leen nuyu baax te di leen ziara mu mel ne dikkaat nañ fi euh, ngir lenn ci ay kàddu yoo xamante ne bii bàyyi na ci sang bu tedd bi Cheikh Mountakha Bassir yàlla na fi yàgg loolu te wér. mu mel ni dafa yëkkatiwaat ndigal lu yees peq teg ko ci loxoy Touba ca kanam ngir ñu defar lenn ci mbeddi Touba yu mag yi yi nga xamante ne bii bu tawee ah dëkkandoo yi ak taalibe yi duñ am fenn fuñ jaar ba mën a wéyal seen ak dem ak dikk. mu mel ne nag ah, am na ci yaakaar lool ci Touba ca kanam ba yëkkati ndigal loolu jox leen ko loolu nag bi mu tàmbalee ba nëgë ni waa Touba ca kanam ñi ngi def seen kéemtalaay kattan waaye banqaas gi nga xam ne mi ngi fare fii ci Touba yoon Daaru Rahman ci njiital soxna Seynabu Seen ak ñi nekk seen ginnaaw ñëpp ñuy ay jàmbaar lool ci Touba ca kanam mu mel i tamit ah bi ndigal li jigee jibee nañ ndigal ci i kilifa ci Touba ca kanam ngir ñu amal benn magasin foofu ci Touba yoonu Daaru Rahman mu mel ne képp koo xamante ni yaa nga ca gox booba te war a am sa addee joo xam ne war nga koo barkeeloo Ah, ñu ngi lay ñaan nga euh, woote foofu wala nga ñëw fa soo ñëwee ci mbaarum sëñ Fall boo laajtee Mor Ndaw mii di wax ak yéen wala Modou kan soxna Seyna bu seen wala ku mu ci ñoom ah, soo leen joxee sa addiya incha allah danañ ko indi ca magasin ba mu mel ne soxla nañ ciment soxla nañ fer soxla nañ xeer ba ci xaalis lépp loo xamante ni daal ñu ngi ko ci soxla ci liggéey bi fas nañ ko yéenee def ngir jàppe ko ci ndigal li nga xam ne Serigne Touba Cheikh Mountakha Bassir yëkkati na ko jëmal ko ci tubaa ca kanam mu mel ne nag euh, foofu ci yoon Daaru Rahmaan bokk na ci liggéey bi muy loolu nga xam ne moo jógee ci tali bi ah, romb mbaarum sëñ Fall fàllu loolu bokk na ci liggéey bi tamit loolu sunu sunu mbégte la waaye nag liggéey bi nekkut ne yoonu kër baay diw la ñuy defar déedéet waaye mbedd yu mag yi la sëriñ bi joxe ndigal moom la jox tubaa ca kanam it ñu fas ko yéene liggéey kon ñu ngi ciy sant bu baax a baax te di leen gërëm waaye di leen bàyyiloo xel liggéey bi bu baax a baax lépp loo xam ne waaye am na ko ci rek na ko indi lillaahi wa rasuuli ndaxte waa yoon daaru kenn mosu leen a raw ci liggéey bi sëriñ Touba kon liggéey bi tamit ñu ngi leen ciy xaaraat bu baax a baax ah, ñaanal jàmm te di ko sàkk ci yéen waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu